yàlla sellal na leen kon ku bëgg baax rek topp leen ku bëgg a topp leen ku bëgg a sell roy leen kon ku mel noonu ah kenn wurta ñëw di ko jéem a taqalaka tuumaal loo xamante ni kat dafa ñaaw kon laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli kon loolu lenn la ci li ñu gëm des na gëm yowmal qiyaama comme ni ko xadis ba ni ko xadis ba jàngalee gëm ni bis nga ñëw bo xamante ni yàlla fay dekkil jaam ñi dekkil leen fay leen seen jëf gis bobu am jaam da koy gëm wolu ko xam day ñëw du ko sikki saka du ko weddi waye itam bis bu ñëw itam day fekk ni la ca xew moy li yàlla xaza wa jalla wax ni mo ca xew yàlla nim ni mu waxee ni mu waxee ni noonu lay amé non lay amé lam wax ni mo ca xew lolu mo ca xew jambi da koy gem bu ko bu ko defé lolou moy tax man ko wadjal nam ko wara wadjalé ci wétal yalla ak diko ko top gu top gu sel gu tege ci sunna si bi sallallahu alaihi wasallam gem bu ko defé gem ab dogal mooy gem dogalup yalla lepp lu xew rek ak num xewé ak fu meuna xewé nga xam lolou mom lu yalla xam la lu yalla bind la lu yalla xam la te itam ci katanam ak xam-xamam ci lay amé dara dara amul fekk nak dara amul ta fekk yàlla xamu ko wala li yàlla bindu ko woon dedet fekk na yàlla moom moo ko dogal te xam na ko itam loolu mooy gëm yàlla moo tax gëm lu rëy la lu màgg la luñ war a xam la luñ war a jàngale la moo waral xadis bu màgg boobu nga xam ne jibril moom moo ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mel ni nit la rek ñëw di ko laaj ay laaj laaj yi ngir lan ngir nit ñi xam ngir nit ñi xam seen diine da ko doon laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di tontu bu ko defee ngir ñëpp maase xam lii kon na question boo xam ne malaaka moo ñëw ngir di ko posé ngir nit ñi jàng ko xam ko loolu nekkul lu ndaw te loola bokk na ci question yooyu mooy gëm yàlla dañu ko lan mooy gëm yàlla mu ne ko gëm yàlla mooy nga gëm yàlla gëm am yàlla gi ak li ci lépp gam malaika ya gam tere ya gam yonante ya gam yamal qiyam gam ab dogal mo xam aw yiw wala ab safaan kon lol cib teunk moy ponki gëm bu waxe waxee gëm ab jurit lol lay gëm ak lépp lo xamanteni yàlla azza wa jalla mom moko mom moko moo gëm lu mo xam lu mu xibar la wala li nga xamanteni yalla nabi sallallahu alaihi wasallam mom moko xibar ndax li yàlla wacce mo wax nañ ko sank mo xam alquran wala sunna lépp la jaam bi gëm du ca wedd dara wenn xaraf du ko ca wedd yàlla ni kon yen ñi gëm ndax gëm googu itam ah ni ko borom xam-xam di jàngale ahlu na wal jamaa dañuy wax ne gëm du lu ñu gëm ci xol rek mu jeex waaye làmmiñ am na ci wàll ay cër am nañ ci wàll gannaaw boo gëmee ci saxool lii ñu wax fas ko ci sa xol gëm ko amoo ci loo cay wedd wala looy sikk sàkka des na sa làmmiñ war naa war naa dëggal pas-pas boobu loolu moo indi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah loolu moo ko indi mooy wax ci sa lamiñ li nga xam ne moom fas ci saxoon mu des nag cër yi tamit war a jëfe waaw am na loo war a jëf ngir mu dëggal sa gëm yàlla gi waaw kon jëm gëm yàlla pas-pas la booy fas ci sa xol looy wax ci sa làmmeñ ak looy jëfee ci say cër li ngay jëfe ci say ci say cër mooy lan mooy jaamu yàlla ak topp ndigal yii moo waral ndigal yi yàlla ba koy digle day ñi ko wax yaa yoo lazina aamanu eh yéen ñi gëm yàlla bu dee gëm nga dëgg la rek def leen lii ma leen di wax wala mu nekkoon kon leen lii ma leen di tere ma leen di ma leen di tere fii nag yàlla dafa am lu muy tere gannaaw bu woowee ñi gëm yàlla ba noppi nga xam ne ñoom ñoo engagé wu pour topp yàlla pour jaamu yàlla pour jëfee ay ndigalam bàyyi ay tereem ñu lay woo ñoo ñu lay digal lii wala mu leen koy tere mu ne yaa ayyuha alladina amanu e yéen ñi gëm yàlla wala wala boog yéen ñi gëm rek bu ko defee gëm lépp dugg ci biir gëm yàlla gëm yëpp malaaka ya gëm téere ya gëm lépp dugg ci biir lépp li yàlla digle ñu gëm ko ah ni ni ñu ko waxoon léegi itam gëm day ànd ak weddi waaw ab julit faaw mu jël jël ay ay engagement am di weddi yi mu war a weddi yëpp li nga weddi mooy lépp lu yàlla weddi wala lépp lu juyoo ak li yàlla saxal ni loolu nga war a gëm moo tax ci beneen aaya يالا دافا واخني فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله واو كيب كو خام داغا ودي طاغوت موي اي خرم ها ولا ولا لوني